mbokk yi nuyu ministre euh, monsieur le ministre euh, Oumar Sarr ministre euh, des mines et de l'écologie est-ce que xam nga Ahmed Djane Seméga Ahmed Djane Seméga mon ngi haut commissaire de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal peut-être que moo ko ba xamatuma Ahmed Diané Semega, dafa am je cite la Falemé est en état de mort clinique la Falemé est en état de mort clinique Wow. Ahmed Diané Semega, nous wax loolu te muy ligéyal suñu réew Sénégal ak yeneen réew yi mu bokkal monsieur le ministre est-ce que mën nga ñu wax naka la Ahmed Semega mëna wax lolu ba ngay signer ay autorisation chinois pour ñuy wut wurus ci bir Falémé ta xam nga né dinañ Falémé cyanure mercure méthylmercure monsieur le ministre ndax yow di nga nangu am cyanure ndox am mercure ndox bu am mercure monsieur le ministre ndax di nga nangoo sangu ci ndox bu am mercure cyanure wala mercure askan yi nga xam ne ñoo nekk ci commune sadatu ñu ngi naan ndox bu am mercure cyanure ñu ngi sangoo ci ndox bu am mercure ak cyanure donc man dama bëgg comprendre gouvernement du Sénégal ban logique lay députés, wala ndax parce que ñun député yi du suñuy doom ñoy nous ci Falémé bi motax mën nañ ci xew Falémé xew xew ak wala ndax ñun ministre du gouvernement du président Macky Sall comme suñuy doom ak suñuy jabar sommes nan ci Falémé ci Falémé nañ Badole le ñuy Nous ñuy empoisonner la Falémé yaa ko gën a xam que ay jangor yu askanu Falémé dit que nous avons dit xamuñu cyanure mercure ak nous monsieur le ministre février 2021 recevoir une belle délégation Falémé ay photo yi ñii dëkk Falémé ndox bi lu muy def ci ñoom ñoom ñii ñëwoon joytu li xew Falémé ñoom sax da ñëw tiit nga ne leen dinga def sa kem kàttan ngir dootoo joxeti benn autorisation nga ne leen di nga teg sa tànk Falémé pour ñëw xool yàqu-yàqu orpaillage ñu toog ñoom j'ai ci réunion Falémé dégg accord jox nga autorisation exploitation semi mécanisée ay chinois nga war leen ben du yow gouvernement Sénégal mo Sénégal mo 2 war deux février ak tey Faleme. sa tank Falémé liñ wa di nga mooy li ngeen di teg ci loosu waa Falémé lii nekkul dëgg mooy ñuy posone waa Falémé amatul jën gis ngeen li dal Lac Rose ba couleur bi changé ndoxu Falémé dafa changé pour ñu xamul Falé pour ñu xamul Falémé mooy l'affluent le plus important du fleuve Sénégal maanaam loolu dafa nar a yéeg yéeg yéeg yéeg ñun chinois yi ñooy ñan ba ñun luñ ñu laaj ci dëkk bi ñu jox ñuy China autorisation il a fallu que nous tëgg la table pour ministre bi ils ont ouvert illégalement ba pare mu jox sanction 10 millions ñun ñun ñoo tax ñun chinois yi ñooy ba ñu Nous di permettre ñuy du Sénégal nous ne voulons plus être la chaise turque de qui que ce soit, la chaise anglaise de qui que ce soit, la chaise chinoise de qui que ce soit, la chaise française de qui que ce soit. Nous, au Sénégal, nous voulons être la chaise du seul peuple sénégalais. Le président Macky peut prendre la décision d'être le coursier d'Emmanuel Macron, d'être le coursier de Paris, d'être le coursier de la France. Mais nous, peuple sénégalais, nous refusons que nos ministres, nos gouvernements soit soumis à l'impérialisme, soit soumis à tous ceux qui viennent dans ce pays-là, et on leur permet d'empoisonner les braves peuples de 13 villages de la commune de Sadatou. Ça ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas continuer cela. Mais ça va changer. Ça va changer parce que Ousmane Sonko, cinquième président de la République du Sénégal, Ousmane Sonko, cinquième président de la République du Sénégal, va changer cela, va inverser cela, parce que les autres peuples ne sont, plus, ne sont pas plus intelligents. Je vous remercie.